زوجي على رسول الله بنت محمد بن

Yet, I don't know, you know, we talk about, you know, you know,

nit ñi jënd nit ñi dañuy ñaanal pour que sa nit ñi dafa jënd engrais

بحديث مسلم يعني قد

Thank you.